plus de trente morts mi ngi nii ci moins de du premier au trois plus de trente sénégalais assassinés Bakary Diem assassiné par la police Lassana Diarisso assassiné par les forces de défense et de sécurité Ibrahima Drago assassiné par la police Mohamed Silla assassiné par la police entre le trois du premier er au 3 entre le 1er et le 3 juin Khadim Ba assassiné par la police des jeunes Bassirou Sarr assassiné par la police Mor Ndiaye 7 assassiné par la police 8 Ismaïla Traoré assassiné par la police 9 Mame Balla Sarr assassiné par la police 10 Daouda Diène assassiné par la police 11 Babacar Samb assassiné par la police 12 Mamadou Ndoye assassiné par la police les forces de défense et de sécurité du Sénégal 12 Mamadou Ndoye assassiné par la police 13 Fallou Sène assassiné par la police 14 Seyni Koula Seyni Koli assassiné par la police 15 Souleymane Danfa Sarr assassiné par la police 16 Sidi Adiata assassiné par la police 17 Oumar Sarr assassiné par la police Ousmane Badjo assassiné par la police Modou B 19 assassiné par la police Serigne Fallou assassiné par la police Mamadou Bey 21 assassiné par la police Tamsir Cissé 22 assassiné par la police Ismaïla Diédhiou 23 assassiné par la police Abdoulaye Camara assassiné par la police Baba Kana aka Baba Kana le rappeur assassiné par la police 25 cinq Hadj Mamadou Cissé assassiné par la police Babacar Mbaye sila assassinat pour la police et plus d'une sept sept corps non encore identifiés à la morgue de Pikine plus d'une trentaine de Sénégalais assassinés par les forces de défense de sécurité et des nervis de Macky Sall ci ajouté les vingt six ça fait cinquante sept ou cinquante huit Sénégalais assassinés par les forces de défense et de sécurité des nervis plus des milices de Macky Sall. Ils ont tué un peuple. buñ ci dollee ñi nga xam ni sont dañ leen gaañ des blessés graves par balles réelles tirées par des nervis de Macky Sall ou des forces de défense et de sécurité en complicité avec des nervis envoyés par Macky ont tiré à bout portant sur des manifestants qui tombaient comme des mouches. Une cinquantaine de morts, une centaine de blessés graves, des tortures incroyables. Tout simplement parce que Macky Sall a fait plus de 12 ans et veut encore s'imposer en voulant éliminer son opposant radical qui est Ousmane Sonko. Ce que le peuple sénégalais refuse catégoriquement d'assister à cet assassinat politico-judiciaire. Donc, il compte se manifester et défendre leur choix, défendre leur patrie. loolu moo tax ñu taxaw donc on lâche pas on pas amuñu lu ñuy tiit amuñu lu ñuy ragal lii ñoom dañ koy delloo dañuy fay tu peux pas tuer plus d'une centaine de sénégalais depuis deux mille vingt et un jusque là où je vous parle et que nga bëgg cee génne noonu c'est pas possible Macky Sall sera le premier président bu ñuy traduire cour pénale international à la cour pénale internationale moom mooy doon le premier président il sera jugé aussi au Sénégal pour haute trahison des crimes non encore élucidés plus d'une centaine de crimes non encore élucidés donc on va poursuivre Macky Sall et on lâche pas encore une fois les gars parce que affaire bi jeexagul lan lañ fi résoudre gum ndem xeex bi am na solo macha allah lan lañ fi résoudre gum c'est un opposant radical un opposant son principal opposant radical qui qui se radicalise par rapport au système démoniaque un système euh, pas du tout démocratique un système euh, dictatorial etc il faut se radicaliser face à à un système euh, dictatorial face à un système d'oppression il faut se radicaliser c'est normal encore une fois di leen wax ni am nañu dee am nañu ñu gaañ loolu ba léegi il faut ñu laver maanaam ñi nga xam ni dañ leen a toroxal gaañ leen sànni leen ci kaso yi ñu ñu rey et cetera et cetera donc on lâche pas non on lâche pas nañ taxaw même bu dee gars yi dañ sonn mun nañ vingt quatre heures quarante huit dañu war a songaat dañuy songaat on doit le système, on doit paralyser la circulation et paralyser le pays. Dara du dox dara rien du tout de rien du tout ñooy taxaw di ñu saaga ay ndey di ñu rey di ñu gaañ non peuple bi du nangu loolu mënul nangu loolu c'est pas possible guerre moom boo ko lebee danga koy fay xeex bi boo ko lebee danga koy fay buñ fi taxawee tey dañ koy fayaat de dans quatre cinq mois de dëkk bi day tàkkaat de dëkk bi munul stable tant que Macky Sall jógewu fi te lu yomb la mun expliquer leen ko jamono ji Ousmane Sonko déjà ñun am nañ liggéey mais gars yi huit jours la Ousmane Sonko def biir këram ba léegi mënul génn am na ñuy may laaj ay Ousmane Sonko waa grand Ousmane Sonko moom mu dee mais Ousmane Sonko mi ngi ci kaso bi. këram kaso lañ ko dugal Macky Sall daa jël Ousmane Sonko bu mu ko jëlee ba léegi huit jours def na ko mu ngi ci biir këram ci kaso bi mais loolu kaso boobu moo gën a metti kaso boobu moo gën a metti man rëbës moo ma gënal kaso kër kaso kër rëbës moo ma ko gënal rëbës am na cour rëbës dañ lay may cour dangay gis asamaan Ousmane Sonko kañ la gën a gis asamaan rëbës am na cour da ngay génn di dox sa deret di dox ngay dox au moins di séddoo ak ñeneen ay ñeneen ñu fa nekk am fa xarit am fa àndandoo naan ataaya rëbës am na loolu rëbës moo ëpp jàmm li Ousmane Sonko du dund rëbës am na ataaya am na café Touba am na jar am na doxantu ci terrain bi am na def sport am lépp am na da génn da génn am na appel am na am na waxtaan am na mais am na sax dara lu fa am mais Ousmane Sonko fu mu dugg mais foofu amul amul loolu kenn du ko fa seeti kenn du dugg boobu ba léegi bu ñu ko fa duggee huit jours kenn duggu fa kenn génnu fa kenn xoolu ko kenn xamul lu koy metti moom gisul ay mbokkam am na yaayam gisul yaayam am na ay frère gisul frère am na ay sœur gisul am na ay mbokk am na ay dëkkandoo mais ñu ko tëj biir këram mais Macky Sall am na benn armee wala benn police bu mu yor ak population bi nu ñu amee doole ak peuple nu ñu amee doole Macky Sall am na force bu mu war a mën a tëjee Ousmane Sonko biir këram est-ce que loolu yéen mun ngeen xel xel xel dina ko nangu ne Macky Sall am na benn doole boo xam ni jàpp doomu aadama tëj ko biir këram huit jours munul génn mais Ousmane Sonko lu muy dund nii ku leen ko waxul de ku leen ne mu ngi dund jàmm da leen nax. Ousmane Sonko da doon toog ngeen koy dégg muy live waxtaan ak yéen Ousmane Sonko ña ngi koy sosal jamono ji façon sosal bu ne mais amul fu mu waxee kaso bu ñu la dugalee kaso nit da sosal te doo mun a wax tontu ko mais Ousmane Sonko waa APR yi euh, parti au pouvoir ñu ngi sosal. ñu ngi chaque jour ñu génn ci média yi duulal ko fenal ko sosal ko mais Ousmane Sonko tam bëggoon na wax wax leen situation yi jamono ji fu mu toll depuis buñ ko jugé fenal ko ba léegi Ousmane Sonko ba mu fi génnee jóge ñu jël ko këram dugal ko ba léegi benn yoon la fi wax boobu ba léegi Ousmane Sonko a besoin de parler il a besoin de ñun nangu ay téléphone comme prisonnier Ousmane Sonko fu nekk nii ku ne prisonnier dañuy nangu say téléphone nangu nañuy Ousmane Sonko dañuy nangu sa ordinateur nangu nañ bu Ousmane Sonko dañuy nangu lépp la nga yoroon pour communiquer ko nangu nañ lépp lu Ousmane Sonko dugal nañ ko biir këram emprisonné ko foofu mais loolu prison la di ñu nekk bu rëbës nag ñoo ko gën ñu nekk rëbës ñoom ñoo ko gën ñoo ko gën la de parce que moom amul téléphone bu muy defee live deful vidéo xa dagg nañ ko coupé nañ ko au reste du monde amul xamatul lu monde bi di di riir moom kenn munul jot ci moom mënul jot ci kenn mënul génn mënul doxantu Ousmane Sonko doon génn di doxantu ànd ak ay garde corps am da doon doxantu di dem géej di entraîner di def mais ana anamu anamu il est chez lui en prison est-ce que Macky Sall war na mun a am mun a garder kër jàmbur waa ji nekk fa plus de huit jours. mais ñun sénégalais léegi dañ bëgg a bàyyi Ousmane Sonko foofu ba un mois un mois deux mois moom ñu <laughs> mais gars yi lenn moo fi des mais sauvons le soldat Ousmane Sonko cher sénégalais. digne, déterminé, debout. Sauvons le soldat Ousmane Sonko. nañ dem dajji affaire yi génne génne Ousmane Sonko foofu noonu loolu mooy le vrai vrai vrai vrai ndam dem dajji foofu génn fa Ousmane Sonko ne ko doxal nu mu la neexee daagul nu la neexee ku wax ñu nangam taan ndayam doxal nu mu la neexee mais loolu mooy combat bi nañ dem nañ génne si Ousmane Sonko nag gars yi nañ dem dajji barrières yi la foule est folle la foule dañu am doole kenn mënu leen téye jóg leen gars yi ñu taxaw dem nag daaj ji barrières yi dàq ndey force de défense et de sécurité déggal seen ndey ba ñu may ñu foofu noonu ñu génne Ousmane Sonko ne ko doxal tant loolu amul Ousmane est en prison mënul gis mbokkam ay mbokk mënuñu ko gis sëriñam sax mënu ko gis sëriñam sax mënu ko gis depuis combien de temps il est coupé du reste du monde kañ ngeen gëj a dégg waa Pastef def communiqué di wax ci Ousmane Sonko amuñu information ci Ousmane Sonko dañuy rafet njort nii rek benn Pastefien amul information ci Ousmane Sonko kenn amul information boobu ba léegi gisu leen kenn ku génn ku leen di informer ci Ousmane Sonko dañuy toog rek na ah mi ngi këram c'est vrai jëluñu ko yóbbu mais mi ngi këram mu ngi ci kaso bi mi ngi këram mi ngi ci kaso bi parce que ça fait huit jours génnul këram. mi ngi jaabante encre këram néegam néeg ya saal ba douze ba waañ ba huit jours yéen ñëpp kuñ ci tëjoon sa kër huit jours munoo génn sax ci buntu kër yi même Ousmane Sonko même buntu këram taxaw nii sax mënu ko ndeysaan il est emprisonné à l'intérieur de chez chez muy jaabante buy buy xool xoolee Ousmane Sonko nu muy dundee mais c'est incroyable il sort de bu yewoo jóg toog naan kafem walla kii toog ci saal bi bu paree dugg génn du génn ci kër gi di ko dund premier jour deux trois quatre cinq six sept huit ba tey suba mu doon neuf ginnaaw suba boo leen ko seetaanee mu doon diis mu nar fa foofu la Ousmane Sonko di toog ba maxe loolu ban kaso moo ko gën a oyof kaso loolu moom bant euh, euh, Guantanamo la fa ñu dugal Ousmane Sonko këram bàyyi ko fa loolu mooy Guantanamo doo doxi doo entraîné doo xooli say mbokk say mbokk duñ la xool say sëriñ mënu la gis say xarit ñu la gis même sa parti mënuñu la teg bët kenn ci parti politique gu Ousmane tegul bët Ousmane Sonko xamuñu lu muy dund nangu nañuy téléphone am communication coupé nañ ko au reste du monde mi ngi toog moom kese moom ak ay njabootam xamuñu ba xam mi ngi lekk xamuñu ba xam mi ngi naan nit mooy dëgër fit rek la ne mi ngi ci jàmm mais danga nga dëgër fit rek mais kenn kenn mënu la informer ci Ousmane Sonko ndax kenn demu fa kenn dem ko gis sax ku la mënul génne ci kaso boobu noonu moom ci kaso kër du la mën a rëccal ci kaso kaso bii nii nii sab kër ñu tëj la fa ku la fa mënul génne nga libéré wu di def live di wax ak jaam di doxantu ku ko mënul loolu ku mënul loolu bu peuple mënul loolu bu dee le peuple sénégalais arrivé wul pour mun a génne Ousmane Sonko biir këram mais sa waay est ce que ñun kon mun nañ ko génne bu ñu ko dugalee ci kaso bi kaso bi ko gën de man de dëgg dëgg bu may lim li muy dund li mu ko doon dund dama naan leen bàyyi leen ñu yóbbu ma kaso au moins ngeen may gis ngeen may seetaan lenn kese la du am du am possibilité def live te moom jamono ji amul possibilité def live du ma mun a yor téléphone te jamono ji yoru téléphone du ma mun a liggéey sama ordinateur jamono ji yoru ordinateur. mais dina mun a dox ci kaso bi nit yi dañ ko mun a gis te moom këram du mun a dox te nit yi duñ ko gis kon kay sa waay kaso be gën a yomb nañ xool rek nañ waxtaan seen biir rek kaso bi moo ko gën a yomb jamono ji soit ñu génne ko këram mu libéré wu daj dajji barrières yi une furie énorme song foofu noonu attaqué ñu jël benn jour song foofu yëpp taal ndeyam dàq leen génne seen ndey foofu loqati leen génne Ousmane ko mu dox mu trophée de guerre bi ñu mun a jubiler taxaw ne au moins le peuple s'est révolté ba ñu toj nday lépp rajaxe nday lépp génne Ousmane Sonko ne ko doxal ku la lal dee mais loolu mooy combat bi il est bien chez lui il est très bien chez lui emprisonné chez lui bu leen keneen dugal leneen dama ne Ousmane Sonko est bien chez lui Ousmane Sonko buñ ko jëloon yóbbu ko feneen yow yow Macky Sall dafa mën a yanu Ousmane Sonko biir këram jël ko Ousmane Sonko <laughs> xanaa amul xanaa dañu day day ay jabaram xanaa day ay mbokkam xanaa day rey ne loolu mun loolu il faut même imaginer Ousmane Sonko am na yaay am na ñeneen ak ñeneen ñoom mun nañ jël Ousmane Sonko biir këram jabaram jabaram yi di dund ñu jël ko yóbbu ko te jabaram yi duñu wax te yaayam du wax te ay mbokkam duñu wax mais loolu munul ne mi ngi biir këram mi ngi biir këram ñu tëj quand même man xanaa boo ma jëlee fii sax. sama waay ma bàyyi fi ay ay dëkkandoo sax mais dëkkandoo yi dinañ wax naan jël nañ ko boo leen déggagul ñu wax leen jël nañ ko mooy jëlaguñ ko bés buñ ko jëloon di ngeen dégg ñu ne jël nañ ko jabaram dina wax ay mbokkam parce que jabaram am na ay mbokk dina wax ay mbokkam ni jël nañ sama jëkkër beneen jabaram bi dina wax ay mbokkam jël nañ suñu jëkkër yaayam dina wax ni jël nañ suñu doom wala ay frère am ne jël nañ suñu frère wala ay xaritam ne jël nañ suñu xarit kon dégguleen loolu mooy jëluñu ko loolu kay leer na loolu du débat am na ñuy dund ñu ko xam quand am na ñu mu nekkal nii jamono ji dëkkul moom kese donc bés bu ñu ko joloon di ngeen ko dégg ñu ko ñu ngi ko bàyyi ci kër ga Macky Sall tëj ko ci biir këram foofu rëbës la moom yóbbuñu ko ci kaso bi këram lañ ko tëj du génn du connecté wu yorul portable du wax ak yéen du jokkoowul ak yéen boobu ba léegi mbokk mënu ko gis avocat mënu ko gis moom li muy dund nii moo gën a bu buñ ko dugaloon kaso nañ ko libéré gars yi le peuple ne peut pas libérer ce soldat là votre soldat sa waay ñaata at la fi nekk ak yéen di wax ngeen di kontaan ndeysaan li ngeen ko fi doon tagg li ngeen ko fi doon yëkkat yëpp Ousmane Noreyni borom baax laa borom leer ku la laal dee ku la joxoñ dee ku la songu dee ñun ko peuple bi buñ ko nangamee loolu yëpp yéen ko fi doon wax yéen a ko mayoon force Ousmane bu doon wax bu waxee benn mu mel ni yonent bu wax yëpp yuuxu Garsa Garsa waa waa waa ñu di jubilee Garsa toll nañ terminus ñëpp génn toll nañ terminus waa waa mais loolu yëpp lu gaayen yéen a ko ko dugaloon ci subconscience am mu gëm ni moom du dund ci kaw suuf di amul jàmm ngeen am jàmm lool yéen a ko de peccum liir bu neexee ndey jaa jàpp ca mbagg ja Ousmane bu amee sañ-sañ di wax nu muy waxee ne moom faalewul Macky Sall dundul Macky Sall c'est parce que moom ci yéen la am yaakaar ginnaaw yàlla te wax na leen ko nëbbu leen ko il a été très juste et vrai il vous a yàlla yéen laa yaakaar yéen peuple bi ginnaaw suñu borom subhanahu wa taala yéen laa jox sama bopp donc peccum liir boobu bu neexee ndey jaa jàpp ca mbagg ja yéen a jàpp ca mbagg ja tey jii feccatul liir baa ngi biir këram gisuñu ko mu génn Macky Sall dëmm bi jël ko nooxóor bi jël ko garde biir këram neexul mais nañ ko libéré les gars nañ ko libéré nañ libeer na ko jar na ko jar lu ko jar a ko jar nañ dem jaayante ko nañ génne nóoree nii borom leer ba foofu ñu ko dugal ca lëndëm gu ñu ko dugal nañ ko fa génne nañ ko libéré nañ wane ni xoolal force reste au peuple sénégalais lu ñu war a def gis ngeen ko am nañ doole taal nañ dëkk bi noq nañ leen ngeen gee ay nerveeg lu ne génne ngeen ko armée bi sax génne ngeen ko ñaf nañ seen nday ba ngeen polombe dañuy dem génne nday Ousmane Sonko dañuy génne Ousmane Sonko ñu jóg ñu ñëpp dem génne ko mais loolu kese la amul leneen donc loolu daal sama gars yi maa ngi leen koy dénk ñu jóg taxaw libérer Ousmane Sonko de chez lui ndax Macky Sall nu muy doxee di jox ay soxlaam noonu la Ousmane Sonko doon citoyen bu war a dox ay soxlaam toog biir këram même biir këram amu fa possibilité wax ak yéen loolu neexul nañ jog libéré ji ko tous les sénégalais j'appelle tous les sénégalais ñu ñëw dakaar na ñëpp bàyyi lépp ñëw dakaar Dakar Kaolack Diourbel Ziguinchor na ñëpp dugg ci oto yi ñëw dakaar ñu taamu benn bés dem mat 3 millions 4 millions de sénégalais autour de chez Ousmane Sonko. dajj nday foofu noonu dàq nday policier yi nokku leen ba rey seen nday diri leen taal leen génn Ousmane Sonko c'est loolu kese la loolu mooy ndam li instant yi loolu moom mooy mot d'ordre bi mot d'ordre bi bu gën a gaaw moom mooy balaa samedi dañu war libere libérer Ousmane Sonko libérer Ousmane Sonko libérer Ousmane loolu mooy slogan bi libérer Sonko libérer Sonko ñu dem attaque à l'attaque à pour la libération immédiate. La libération immédiate et sans condition de Ousmane Sonko. loolu moo war a doon le prochain bu gën a ah, nu nu mu gën a gaawee nag nu mu gën a gaawee bon bu ñu weesoo loolu Donc hier, j'ai discuté, j'ai beaucoup discuté avec euh, Juan Branco. On a parlé de Jérôme Bandiaki. Jérôme Bandiaki, en ce moment, il est à Dakar. Man, ça fait 15 jours, man, top. C'est mon réseau, il est encore top. Je suis top. Je suis top. Je suis top.